ngir tàbbal seen loxo ci xeex bu am solo bi nga xam ne ni àdduna warngal kàpp ñu ngi koy xeex mbas mi di coronavirus ACIS di kuréel gi lëkkale industriel yi ak commerçant yi nekk ci senegal bànqaas bi féete Touba amal na jëf ju am solo lu toll ci fukki junney masque ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ay gel maye nañ ko loolu lépp nag ñu xayma ko ci lu tolloog ñaari million jëf ji nag ñu ngi ko amal ci marché Ocass bu Touba ànd ci ak mbooleem kilifa yi nga xam ne nii ñoo ŋànk gox bi di Touba ci wàllum administration ci teewaayu sous ak maire service d'hygiène ak ñi nga xam ne nii ñoo yore wàllum wér-gu-yaram ki dëkk bi todd bi di dëkk bu tedd bi di Touba amal nañu opération bi ci anam yu am solo Fallou Gallas Xuma nekk ci bopp ACIS fii ci Touba indiwaat na ci ay leeral. ñoo woote woon bis bii ngir sensibiliser mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi ñu ñëpp ñu àndandoo di takk masque di laal euh, jii def sensibilisation boo xam te ni mboolem marché occasion ñi yi nga xam ne dañuy jënd a jaay kenn ku ne da nga takk masque laal sel te ñu digal la nga sax ci bu sa client ñëwee nga nga nga nga digal ngir jàngoro ji nga xam ne moo fi nekk ñu mën koo xeex mu jóg fi ndax dëkk bi kat mooy mooy bi marché bi lépp lu laal dëkk bi rek laal na marché bi moo tax ñun ñi nga xamante ay commerçant xam la ñu kenn jiite moo fexe ba mbooleem koo xam ne da nga jaay ko jënd ñu ànd ñu bi fexe ba képp kuy kuy nekk ci marché bi rek ñu fekk la fa nga nekk jox la masque nga takk jox la sel dee sax nag ngir ndigalu sëriñ bi sensibilisation bi maanaam di yee askan wi ngir ñu xeex ak coronavirus tax nag ñu maye ay masque ak ay gel ci biir marché Ocass ak li ko wër ACIS nag ànd na ci ak mboolem kilifa yi rawatina nag ñi nga xam ne nii ñoo di takk der yi li ko dalay marché Ocass jàpp 28 mboolem ku romb rek moo xam ku nekk ci oto yi wala saret yi wala sax jaaykat yi doon nañ leen jox ay masque ak gel ngir nag ñu tàbbal seen loxo ci xeex bi nga xam ne nii ñoo ngi koy xeex coronavirus ñii di takk der yi kin demul ñu des. xam ne nii ñoo yore lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci dëkk bu tedd bi di Touba. docteur Modou Fall Diouf teewalan fi nag ki nga xam ne nii moo jiite paj bi ci dëkk bu tedd bi la yëkkati na ay kàddu rafetlu jëf ji waaye soññaat askan wi nag ñu gën a góorlu farlu ci li nga xam ne ni moo di takku masque yi. di rafetlu lii rek euh, activité bi ngeen di def nii muy activité de sensibilisation la rek euh, pour euh, doole ñaax askan wi ci respect mesure barrière yi yi nga xamante ne ni moom. Euh, moom mooy fexe euh, wàllante jàngoro ji ñuy wax nii wàññeeku maanaam mu jëm ci euh, wàllu sol masque ak bàyyi rassemble yenn rassemblement yi ak di raxas sa loxo saa yoo xamee ne nekk nga en contact ak leneen loo xam ne jàpp nga ne nit laal na ko nga mën a raxas sa loxo balaa sa loxo di dellu sa kanam mu jëm sa kanam lu mel ni bakkan ak gémmiñ ndax jàpp nañ ne doomu jàngoro bi mën na jóge ci loxo laal sa bakkan wala sa gémmañ jaare la foofu dugg la masque yi it ñu gën ci góor góorgóorlu bu baax a baax ci sol masque yi euh, ndax sol masque bi it euh, bari na ñoo xam ne tam ñi ngi koy sol waaye niñ koy solee noonu daanaka baaxut wala njariñ liñ ci sentu duñ ko am liñ ci bëgg mooy képp ku sol mag masque te bëgg cee jariñu njariñ li mooy lan mu aar la ci doomu jàngoro ji doomu jàngoro ji mën laa bañ a dugg te fi mu la mën a jaar mooy sa bakkan wala sa gémmañ kon ku bëgg a sol masque tam jariñ la boo solee masque bi na tegu ci sa kaw bakkan wàcc ba ci sa suuf si kim boo génnee nga fexe def noonu sàmmoon teg loolu ba kere ngay delluwaat sa kër. ci teewaayu su préfet bu ndaam teewalan fi nag njiitu réew mi ak mbooleem état bi yëkkati na ay kàddu yu am solo rafetlu nag jëf ju am solo ji nga xam ne nii waa ACIS def nañ ko muy tàbbal seen loxo ci xeex bi nga xam ne nii mboolem àdduna ñu ngi koy xeex coronavirus. di am mbégte lool. ñëw fekkee li nga xamante ne bii moom la ñuy dund jamono jii ñu nekk nii euh, muy lu am solo ndax yàgg nañ koo wax état moom yàgg naa wax ne feebar bi bokk na si li koy jëlee fii ñu fexe ba engagement communautaire am engagement communautaire nag mooy askan wi si seen wàllu bopp ku nekk jël say matukaay tey jii nag waa ACIS ñoom ñoo def lu am solo kenn ñaaxu leen si nag kenn ñaaxu leen si du man maa leen ko wax du médecin chef moo leen ko wax kenn waxu leen ñoom ñoo jël seen initiative xool fi nga xamante ne bii fa mbas mi toll ñu ne kat nañu tëj seen i boutique ñëw ginnaaw bi ñu euh, nettoyé marché bi ba pare ñu daal di génne seen alal pour joxe ay masque joxe ay gel jàpp naa ne loolu bu ko kuréel yi nga xamante ne bii ñoo nekk si dëkk bi yëpp defee amaana mbas mi tolluwaay bi dina wàññeeku donc maa ngi leen si sant di leen si félicité di leen si gërëm xëj na lii moom bokkut sax si maanaam li nga xamante ne bii mooy seen wàllu liggéey. Mm. waaye bu ngeen ko defee ñaax la pour ñi nga xamante ni bii donc ñi ngi ci ay béréb. yuy dajale ay mbooloo. te xëj na taxawaay bi amaguñu ko. Euh, dafa am lu am solo nag loo xamante depuis bi mbas bi commencé dañ koy wax. Mm. dañ naan dégg nañ ko suñu réew mi dégg nañ ci si yeneen réew. Mm. ñu ne nu sommes en guerre. guerre nag armée moo koy def. Hmm. armée nag dafa am ay généro hmm. am ay hommes de troupe. Hmm. sëñ taxa tey jàpp nañ ne. kenn gënu koo nekk général. jëf ju am solo ji nga xam ne ni nag ACIS mu ngi ko doon amal di ñaax askan wi ci xeex coronavirus doon maye ay masque ak ay gel du ne guléet ñu koy def gannaaw lakk gu metti goo xam ne ni amoon na ci marché ocas ñii di assis seen ab taxawaay feeñoon na ci lool ngir jàppale ñi nga xam ne ni nag. ñoo loru ndaje mi nag occasion bu mag la woon ci commerçant yi ñu gën a soññ nag mbooleem askan wi ñu taabal seen loxo ci xeex bi waaye nag gën ne soññ ñi nga xam ne ni ñoo di commerçant yi ñu gën a farlu ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii mun Mountakha jox na leen ko foofee ca université Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk fii ci tuubaa